Sonko jalal jamaan bur yàlla jërëjëf mani ndigal jim na Ousmane ma noon ya moo joxoñ jamaay ni ko jëlal ndam li sen chaîne Dak medina nek à fond ci campagne électorale bi tay nak ñi ngi ànd ak coalition jomay président mo taxaw ak koo xam ne également tam ku ci ràññeeku ko également muy conseil municipal sëñ bi tribunal bi nan la. Ismaïla la Ismaïla ah. Diène. nekk membre du bureau de Pastef medina nek ci coalition jomay président aussi au niveau de la Médina ok fan ngeen toll ci campagne bi. comme niñ ko xamé ah, depuis samedi ñi ngi ci samedi et dimanche samedi on a fait une activité au niveau du département donc dimanche on a fait euh, une grande un grand meeting au niveau de Parcelles Seni. donc depuis lundi ba légui fait des activités au niveau de la Mérina. on était au niveau de Ngaraf. Euh, lundi on était au niveau de Koussoum tay dañuy jëm côté Dames bi jëm Soumbédioune bi. donc fa la ñu da ngeen di wax ak sensibiliser également leen ci vote bi wala da ngeen leen di wax programme djomay président. effectivement hmm. parce que ko xam Pastef xam c'est des débats d'idées c'est des échanges donc dañuy dem seeti sénégalais yi waxtaan ak ñom expliquer leen expliquer leen euh, suñu programme mais aussi présenter leen suñu spécimen wax leen le choix de Diomaye pourquoi ça a été le choix a été fait sur Diomaye la personne de Diomaye nga xamni nous Sonko ñun les xam nañ candidat mais donc ak ndëgg sërëx yi nga xam nguur gi donc expliquer leen ni il va prendre le relais pour poursuivre le projet donc liggéey bi ñu doon def boobu ba mais c'était un projet et aujourd'hui c'est Diomaye qui doit poursuivre le projet donc loolu la ñuy dem wax ak xamal que c'est Diomaye qui va porter maintenant le projet passé pour que l'objectif bi ñu am changer considérablement la face de ce pays ñu mën ko atteindre au soir du 24 mars 2020 parce que Sonko colonie nit ñi la mais son colonie donc en quelque sorte mën année, ne nit ñi pas la personne d'Ousmane Sonko mais c'est le projet passé l'année lañu adopté. parce que c'était c'était depuis parrainage bi ba légui bi ñuy sur le terrain les gens ont adhéré en masse sur la candidature de Jomai parce que day encore une fois nit ñi topuñu la personne d'Ousmane Sonko qui compte mais c'est le projet passif ak ku tu porter le projet les gens vont adhérer. waaw mom lañu gëm mom Sonko mom lañu gëm mom lañu wóolu moom lañu ñu bëgg ci teg ci boppu réew mi mook jomaay ñu doxal réew mi ndax am nañ ci ñoom confiance ndax boobu ba léegi ñu ngi koy noot di ko mbugal di mbugal ñi moo àndal ñëpp di leen tëj prison lu ne ñu def ko ko waaye teewul ma ànd ngorom rek ànd ak digniteem rek tëdd ca kaso bii rek ñun ñu nekk fii gënuñu ko de waaw waaye moom ngorom moo ko fa bàyyi. waaw ñi ñuy fekk si suñuy kër ak suñuy place daanaka ñoom dafa mel ni daal suñu ay ñoom ñoo bokk bëgg-bëgg daal ci ni ma ko mën a waxee. parce que avant ñuy egg si ñoom sax ñoom dañuy daw ut siñu di di am ànd ceeg mbette goo xam ne ñun sax dañuy mujj euh, daf ñuy mujj dépassé daal. waaw man par exemple parfois damay gis euh, cas yoo xam ne ci biir caravane bi. damay émotion bi sax daf may mujj jàpp tellement que nit ñi nit ñi ñuy accueillir xam nga vraiment di ñu dooleel di ñu wan ni ñoom ñu ngi ci ñun daal vraiment vraiment di wane ni vraiment ñoom ñun la ñu àndal. waaw effectivement dañ ne comme chaque jour rek dafa am euh, kii bu ñuy jël gox bu ñuy jël pour wàcc fa massifier fa parce que gis nañ ne taxawaay bi loolu rek la laaj. peut-être ñi ci kër yi nga xamné ne bëgg nañ jomay mënuñ gis jomay wala mënuñ gis Ousmane Sonko ñun ñu gis ñu ñu safonté ak ñom ba nga xamné ne le 24 ñu mëna dé dee def différence bi parce que dañ bëgg balay 18 h mom ñu mais lan moy réaction ñi ngi ni fekk seen kër ñi ngi ni fekk ci mbedd mi ak seen place wa ñi ngi fay fekk ñëpp moy dafa melni yeen lañ doon xaar yéen rek lañu doon xaar parce que ñoom koo ci waxal rek yéen da ngeen war wàcc da ngeen war a yàqam parce que ñoom dañ la yàqamtiloo sax pour nga wàcc sur le terrain kon boo ñëwee rek dañuy am satisfaction ci le fait que ne gis nañ leen te gis nañ ne ñu ne peut-être ñeneen euh, coalition yi gisuñ leen ci terrain bi mais bu dee ñun moom franchement ñu ngi ñuy gis li doon gën a neex rek mooy ñu gën ñu approché te defe naa ne buñ ñu approché gis nañ ne vraiment dina am avantage ëllëg daal. Oh, yéen a ngi nii si caravane Diomaye nekk fii tey ci au niveau de Dames. nga tey seen activité yi ngeen ko yi ngeen nekk euh, ci campagne bi. waaw booy xool campagne bi comme ni ñu ko doon def parce que activité yi. bon seetee de la première fois ñu koy def Medina. Médina muy activité wër biir Medina saafonteeg nit yi saafonteeg euh, am yi ndogu c'est pas la première année c'est je pense que c'est la quatrième année ñu koy def tey ren nag dafa am contexte bu bu particulier dafa nekk si période campagne donc période campagne bon noonu mu que moi tax ñu gën renforcer lu ñu doon def xëy na bu ñu ko daan commencé dañ ko daan heure ndogu mais tey dañ koy teel commencer commencé donc dugg saafonteeg nit yi saafonteeg suñuy am di jàmm vraiment séddale ndogu et puis voilà ñu xam le la candidat Bassirou Diomaye Faye mu ngi existé biir Médina te boy xol depuis ñetti fan wa wa wa wa wa Pastef wa coalition Diomaye président kessé ngay gis bir Médina muy wane suñu taxaway bi ñu am bir Médina te di sante di ci gërëm aussi militants yi ak sympathisants yi parce que ñun ñuy dolel ñun ngi ñuy taxaw fooy xol caravane bi fu mu romb ñëpp dañ koy bégee ñëpp dañ ci kontaan vraiment di ñaan gaay encore une fois ñu jëli sen carte électeur yi nga xamni le soir du 24 mars Inshallah, allah taxaw ak kenn bir Médina. ok nga bokk GPS Sénégal également Bien bonne posture ngeen am au niveau national au niveau des régions, également au niveau des départements. waaw effectivement man man maay responsable finance au niveau de la JPS nationale. Mm. voilà donc JPS comme vous le ko c'est quelque chose de national. Mm. donc parce que nous xam jeunes yi te jeunes yi vraiment euh, projet de jëm kanam donc au niveau de tous les départements du Sénégal pas plus tard que ce week-end on a fait une réunion avec tous les départements du Sénégal mm. voilà juste pour peaufiner une stratégie pour avons nous ñun élection donc de la de, la campagne électorale au même jour du vote au jour du scrutin nous war sécuriser suñu scrutin donc ñun jeunes nous dañoo vraiment faire un bloc pour Inch'Allah, le 24 mars nous soobee voter, voté jël ndam et Inch'Allah, nous ñu sécuriser ce vote après quatre jours de campagne quelle morale ban moral ngeen am comme coalition de président. waaw moral bi comme on est soulagé soulagé parce que nous dugg biir Médina am suñu un candidat mais gis nañ jomay président num fi taxawé keneen génnul bir Médina batay ni mala kay waxé ni nii ngi suivre mais ñun dafa am taxaway bu ama am solo lu ñuy wax donc lu ñuy def et population yi dafa ñu and dañu and ak ñun donc vraiment dañ nek di ko rafetlu di leen si remercier encore une fois bu baax a baax la population de la Médina donc di leen ñaan inshallah au soir du 24 mars ñu dem voter ji té ñu dem récupérer carte électeur yi donc nga xamni dinañ mëna taxaw bu baax a baax bu soobee yàlla. waaw xam nga ñun réaction population du leen lu dul dañuy wane sen adhésion li ko wane nak lool du leen lu dul résultat wu liggéey bi ñu def depuis 2012 ba léegi parce que doon ko def ci terrain bi euh, euh, nu mu wax ni euh, idéologie passive, euh, communication passive, euh, dialogue, manam projet passif, dugg ci xol la tax parce que duñu gëm projet message passif, en gros ci gattal mo tax réagir ak aussi son leader charismatique Ousmane Sonko yàgg wax té ku ko rek xam ne le plus important, c'est entre entre le peuple sénégal, nous sommes tous les gens. C'est ce que nous avons fait à l'agent public. C'est le fruit d'un travail long et acharné de plus de 5 ans et 6 ans. C'est ce que nous avons fait le peuple sénégalais. Élection 21 jours, mais 14 jours, est-ce que nous avons fait le faire Est-ce que nous temps fait le faire également pour nous le waaw luñ mën a def rek daañ ko def mais euh, leer nañ ni tey jii bu amee engouement bi ci projet Pastef projet wu coalition Diomaye Pass Diomaye président mooy c'est parce que message dafa jàll message boobu jàll nag sunu tànk wala léegi sunu loxo bu fa àggul tamit sunu communication wala sunu xalaat wala sunu idée àgg na fa te parce que xam nañu on jamono yu communication digitale lañ nekk li waxtaan télé ci poche message yi mi ngi jàll ci Facebook mi ngi jàll ci WhatsApp bi mi ngi jàll ci TikTok bi donc ñun bu ñu teewul tamit gars yi ñu ngi déglu du ñu xam lu ñuy wax xam lu ñuy wax na aussi dafa ko lu intérêt nation bi. mais ñun ñu ngi ñaan yéen da ngeen fàtt da ngeen da ngeen fàttu fépp parce que ñi ngeen bokkal tey langue politique bi gisuñu leen. mooy li ma la sànq rek message bi moo jàll ba ñun ci adhéré xëy na ñeneen ñi luñ dañoo jàll ba ñeneen ba muur këy na. Euh, Euh, beneen message mënut a jàll bu xam ne ñoom bu ñëwee dañ fekk gars yi teewuñ déglu leen sax ndax xam nañ li ñu leen jot a wax lu sax la lu am solo la tey defuñu lu dul intérêt wu dëkk bi. waaw te quatre jours de campagne quel est le moral yéen lan mooy moral bi fu mu toll waaw moral bi euh, bu ñu gisee euh, campagne ni mu demee au niveau communal ci commune yi. patriote di ñëw di adhéré engouement euh, ci département yi mooy am caravane yu jàll. ndax samedi moom lañ tàmbalee premier jour def nañ caravane dimanche def meeting. Euh, gis ni région yëpp capitale régionale caravane euh, waa coalition Diomaye dañuy battre campagne ñoom ñoo njëkk euh, gis ñoom lañ njëkk gis si terrain bi def caravane yu am solo loolu dafa daal joxel donte depuis après cinquième jour de campagne ñu ngi am commencé boole ko lan weeru sell bi weeru weeru koor fekk ñu si mais dafa mel ni daal lu ñu ëpp doole fi mu toll ni bopp ñu jóg da ngay xaw a yëg benn pratiquement mais boo xasee ba wàcc ci bi rek lépp ngay fàtte dem dañ ñëwoon sax bu ñu ndogoo xëy dañuy taxaw waaye bu ñu ndogoo dañu continuer ndax lan engouement bi. ma ni dañ ñoo waxoon bu ñu ndogoo dañuy arrêté waaye dañoo ndog continuer te yaakaar naa tey ji sax loolu la ñuy def ndax ni ma gisee patriote nii bi ñu tàmbalee euh, lu ñu joxoon mooy bu ñu paree rek ndogu yi dañuy toog waxtaan jeex ah. mais luñ toll nii dañ ma ne sax demb bu ñu ndogoo duñu taxaw dañuy àggale ba objectif bi ñu am mooy quartier bu ñu dugg ñu matalu ko sëkk moo tax ma yaakaar naa sax ñu ngi door tàmbali te comme heure ndog saru ah. bu ñu paree dañuy àggale bu ñu ndogoo dañu àggale incha Ndakaaru. le mot pour les militants également pour les waaw leen gërëm ndax ñun amuñu seen pay dañu nekk ci buntu projet bi kaw buntu projet bi ne ci Médina ñoom ñu jiital ñu te te te fakkastaluñu waaw di leen remercier bu baax amuñu seen pay fii nii amoo kenn koo fi gis koo xam ni dañ koo jox 1000 francs wala dañ koo jox t-shirt nee ko ñëwal gis nga sànq bu bokkul ci caravane bi doo am t te li ñu yor sax daanaka matul donc engagement boobu nit ñoo ko mool ñun nag ñun lu ñu remercier ndax am nañ tey bii ñu yor ay milliards yori oto yu jaar ay cent millions te kenn topp seen ginnaaw ñun yoru ñu dara mais lu ñu gëm-gëm moo la ñu ñuy toppee dañu ko san bu baax te loolu kenn yàlla rek moo ko mën a ba tey rek ñoo ngi ci caravane bi maa ngi taxaw ak benn soxna koo xam ne moom vrai patriote la def ay rasam ay loksam soxna Ndiémé ma lay nuyu maa ngi lay fay di la nuyu di la di la sant ci caravane bi. waaw waaw ñu ngi sensibilisation yi. pour nit ñi gën a génn gaaw jëli seen carte d'identité. loolu waaw ci la ñu nekk. xàmmee lu leen jomaay bu baax. ñu gën ko xàmmee ñu xam ne jomaay mooy Sonko Sonko jomaay la ñu yabalal. ok duggee ci nit ñi ban ban ban ban ban accueil leen yi def parce que gis naa ñëpp a ngi génn. waaw c'est vrai ñun bari yenn ñu tase ñoo xam ne sax dañu naan jarul sax ngeen di génn ma. liggéey bi moom daanaka nit ñi mi ngi ñu ñu koy yombalal bu baax a baax. waaw. heure bi fan la moral mi toll. waaw ñu ngi am confiance. bu baax a baax waaw di yàlla. premier tour. xanaa am yaakaar ne suñu président Diomaye suñu projet. projet Pastef nekk projet boo xam ne si yaakaar ne bis ko tëralee Sénégal Sénégal dina jëm kanam euh, ñu sonn dinañ gis seen bopp. bépp couche bi nekk fii Sénégal na gis seen bopp te loolu moo manqué fii ndax Sénégal fu mu toll ni population bi dañoo sonn te ñu si kaw ñu yor réew mi gisuñu loolu parce que ñu ngi yor seen xaalis di ko lekk ak ñu siy jox te bu ñu duggee si biir réew mi xam ne Sénégal sonn nañ da ngay gis koo xam ne bu xëyee soo passe sax da koy të te mu nekk père de famille wala mère de famille donc loolu loolu yëpp vraiment projet bi ñu fi teg bi fi Sonko indi te tey jii Diomaye porté ko parce que euh, xawoon nañu leen si début bi foog ne Sonko moom moom rek lañu war a voté moo doon président. tàmbalee ba léegi wax dëgg yàlla suñu xel mu ngi dal ndax gis nañu ne waa Médina yi ndekete pare nañu bu yàgg pour votel la coalition Diomaye président pour delloo njukkal président Ousmane Sonko ndax président Ousmane Sonko moo indi lii lépp. di gërëm bu baax la coordination Pastef Médina ñëpp ñi ci nekk ndax taxawaay bi ñu taxaw rafet na ñoom ñëpp di jël ci bopp bi Demba Diouf ak Ousseynou Ly bu ma leen bu ma leen santee rek sant naa ñëpp mais di wax ni campagne bi ñu amee tey lii mooy campagne proximité àndandoo wax ak ñi dëkk ci biir kër yi jox leen suñu ay spécimen mu ngi nii di leen wax ni bu ñu demee bulletin bii la ñuy jël bulletin bi boo ko jëlee moom ngay voté loolu nag ñu ngi ciy gërëm ñëpp di wax ni na ñëpp taxaw élection yi day am ñu ngi géem a véhiculer ay information yoo xam ne amul benn njariñ ku parewul nag mooy wax élection du bu jëkk dañ daan wax opposition bi bëgguñu élection am waaye tey ñoom ñooy élection voilà tout à fait Nous, comme nous avons dit di nous euh, nous côté pour def sunu caravane pour sensibiliser population bi bu ko faits. Nous la grande coalition président la moral le moral moral le moral est bon on va gagner dès le premier tour avec 71 aussi Gibraltar samedi que tout le monde ñu caravane il nous faire quelque chose de grandiose quelque chose de spécial pour la population de Sanel Gibraltar bi voilà merci beaucoup ah,